chers téléspectateurs de la 7TV télé bi ñu nuru ba nopp duñu dajale mbégte lay doon ak bànneex comme ni ñu koy defee tous les mardis à partir de seen émission bi di xew-xew nga xam ne lépp loo xam ne xew-xew la dañuy ñëw ànd kook yéen tey nag fi ñu taxaw ñu ngi fi Tivaouane Peulh quartier bi ñuy wax Daaru Salaam xew-xew bu am bu doy waar nag moom moo fi am ndax euh, benn ndaw bu fi nekk boo xamante ne ni moom la ñu agressé agression boo xamante ne bu ñaaw loolu la bu doy waar gannaaw insécurité bi nga xam ne ñu koy jooy si banlieue bi fii nag waa Tivaouane Peulh ñoom itam dañ fi wulee ñaay ndax nee nañ agression bi dafiy nekk moom si lañ ko agressé mu am si ay blessures yu méttee méttee méttee tey nag émission xew-xew fa seenee ñëw fii Tivaouane Peulh fi ñu nekk quartier Daaru Salaam dugg xuus xool jafe-jafe yi nga xamante ne ñoom ñu ngi koy jànkonteel waaye ki nga xamante ne tam insécurité bi fi am nga xamante ne ndaw waajooju si lañ ko agressé agression bu métti ñu fa seenee ànd ak ñoom ñëpp voilà mbokki téléspectateurs yi ñu ngi toog ak ki nga xam ne nag moom moo ñu indi tey fii si Tivaouane Peulh gannaaw xew-xew bi mu dalee si kaw mu nekk lu métti lool Babacar maa ngi lay ñu ngi lay fay ñu la xam si Ndeye Pet ba yaa ngi si waa ñu ngi si jàmm actuellement ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. ñu ñëw tey Tivaouane Peulh gannaaw si insécurité bi nga xam ne am na fi yow nga dund nekk si victime boo xamante ne da nga si dund lu doy waar. waaw insécurité bi am Tivaouane Peulh moom lu si waay wax rek am na loo baax euh, man nag man la mbir yi mujjee dal sama kaw mais yàgg na fii dal ay doomu aadama fii peut-être dafa dal si man ma ñamee taxaw wax ne dal na ma mais bari na ñoom fi dal sax nangu ñoo taxaw di wax ne dal na leen. dañuy dem fajook seen i gaañu gaañu boole kook ñàkk seen alal duñ ci topp dara si loo xam ne moo jëm si wàllub yoon. mu dal sa kaw mu nekk lu metti lan moo xew. waaw en fait euh, man damay yëngu si wàllu njaayam xar tabax si buñ liggéey pare buñ noppaloo dañuy fas yéene delloo ñi nga xam ne ñoom lañ jëflante woon si wàllu xaalis euh, bés bi agression bi tam di mardi le 4 dama départ fii àgg taliba ay vers si 18 yooyu dama àgg si kaw tali bi laata mooy jël oto sax booy dal nañ suma kaw. jeg saari wàcc si benn set rek ñëw dal sama kaw mu nekk mbooloo mu xaw a bari si laa jëlee blessure yi nii ma am mais sant yàlla parce que am na ñu si jot a jàpp ba defeere leen ba yóbbu leen si kanam yoon. dafa am lu dox diggante tax ñu ciblé la waaw li dox suñu diggante mën naa ni dara doxul suñu diggante mën naa it am na lu dox suñu diggante ndaxte fii di nga xam ne moom mooy Tivaouane Peulh dafa meloon melokaan woo xamante ne si wàllum mbonte si wàllum jaay yàmba agression viol am na fii tabax boo xam ne xaw ma korité fàtte moo gën fen am na kuñ fi violé fii benn femme si biir néegam lañ ko fekk violé ko pare rey ko ba léegi kenn mun ñu see wax kenn koo xam ne jàpp nañ ko si yooyu insécurité yooyu noonu bari fii Tivaouane Peulh fees fi del del del agression matin midi soir bëccëg gi sax dañ si agressé nit parce que man boo xoolee agression bi ñu ma def ni 18 heures ma ko def ama kuy dab góor yàlla bëccëg di ko agressé kon doo bàyyi keneen moo tax bi loolu amee fii Tivaouane Peulh mu nekk agression yi fi bari bari fees fi dell ak vol de bétail sàcc mi mel na bul xam portable ak lépp loo xalaat si bon am fii biir Tivaouane Peulh si la nag benn comité bi fi judd muy comité ànd defar Daaru Salaam depuis loor nag ñu ngi sant yàlla ndax sunu koñ képp ku fi doon jaaykatu yàmbaa jële nañ la fi wala ku ko fi defee da koy nëbb. kon koñ bi fii dafa am ñu fi doon jaay fii jaaykatu yàmbaa ñoo feesoon dell yoon bi nga jaar léegi bi ngay ñëw bu doon jamono jooju noonu doo fi ñemee jaar ndax jaaykatu yàmbaa yi fi nekkoon dañ daan lal yàmbaa nii si kaw mbedd mi boole kook samp seeni i paaka ak seen i jaasi ak seeni i mbaari mbaari boo ko xamul mooy butéel yu ñu toj yooyu la ñuy samp toog ku leen romb ñu saaga la bon xoolee xool bu la neexul ñoo la eh dégage xamuñu ko fi dëkk ko fi dëkkul. donc nga ne fi ma aw man bi may ñëw foofu la ñuy lal yàmbaa bi si mbedd bi xanaa guddi lay doon. foofu lañ daan lal yàmbaa du guddi bëccëgu ndara kàmb nit ñi bi ñuy dem marché fa lañ leen di leen di romb. ñun ñii bu daan xëy fa lañ leen di bàyyi dem liggéey bu ñu wàccee fa leen di fekkaat ñu toog daanaka seen kër lañ ko defoon moom koñ bi occupé ko si la waa koñ bi yëpp ne lii faw mu jóge fi si lañ taxaw fii am fi benn journée boo xam ne journée raxas lañ ko tuddee képp ku fiy jaaykat yàmbaa ñu jëlale fi depuis loor nag bàyyiwuñu si lañ taxawal comité bi nga xam ne mooy ànd defar Daaru Salaam ñu continuer di doxantu si quartier bi di xool fi ñu gis ñaar nit ñett ñu toog ñoo wax ak ñoom bu fekkee dëkkoo fi nga génn suñu koñ bu fekkee jaaykatu yàmbaa ñu dàq la si xaj. d'accord foo gis ñuy def lu bon dina am ñu fa dëkk. waaye dina am ñoo xam ne dëkkuñu fi mais la majeure partie ñu fi daan ñëw fi mm-hmm. dëkkuñu fi. mais waa koñ bi lañ doon fekk si parce que mënoo dëkk bañ a dëkk si koñ ñëw rek am sa fitulal sa yàmbaa noonu. non dem na ba mujj gi waa koñ bi sax nekkatuñ ci parce que ñu fi daan gis doo fi gis benn kanam boo xam ne da nga koy xàmmee fii ne fii la kër papam nekk wala fii la kër yaayam nekk mm-hmm. mais bi ñu leen fi jëlee nag en boobu nag peut-être moo doxoon suñu diggante ak parce que man mii di wax ak yow porte parole laa si kii bi comité ànd defar Daaru Salaam bi man maay porte parole am nañ président ak lépp loo xam ne noonu association di doxee am nañ ko suñu biir comité bi. léegi ñu ñëw si borom sareet yi parce que dama dégg ne insécurité bi fii lu si ëpp borom sareet yi ñoo koy def parce que nee nga ñi la agressé léegi dañu wàcc sareet def la bagage ba pare doo def. waaw dëgg la. insécurité bi fii bokk na si sareet yi mais am na fi borom sareet yoo xam ne ñu jàpp seen morso ñàmbur lañ ñuy liggéey yor seen i njaboot yor fii famille am na nekkul sareet dafa bon parce que man mii mën naa yor sareet sareet liggéey la rek mais dafa am ay defkatu ñaawteef yoo xam ne dañuy mbubboo sareet yi te yaruñu sareet ñooñ nag ñoo fi bari fees fi dell te mënoo leen identifier bari na projet yoo xam ne nit ñi ñu ngi koy liggéey fii di ko jébbal suñu maire bu bon bi fi nekk muy Papis Diop nga xam ne bëggul dara lu jëmale Tivaouane Peulh kanam nit day bind projet ba mu jekk dem jébbal ko ko pour loo xam ne dañu mën a identifier borom sareet yi fi nekk pour financement bu ndaw pour ñu mën a identifier sareet yi fi nekk yëpp nga xam ne ku def njombe dina xam numéro tel moo ma defal njombe bu boobaa ñi nga xam ne ñooy def katu ñaawteef dinañ jóge fii si Tivaouane Peulh wala dootuñu mbubboo sareet yi mais da nga ko koy yóbbul projet yi mu ne la waaw baax na lu mu la wax du dëgg Papis Diop lu mu la wax du dëgg njiit bu mel noonu ñun loolu lañu yàlla nattoo ñun waa Tivaouane Peulh te loolu daf ñoo naqadi ba sa kanam yàlla léegi insécurité bi depuis kañ ngeen yow depuis kañ ngeen dëkk fii nga xamante ne mooy Tivaouane Peulh quartier bi depuis ko remarqué non insécurité bi mën naa ni diggante juróomi at yi ñu génn la fi commencé am bu njëkk Tivaouane Peulh doon na am ay sàccantu yu ndaw yooyu mais comme ni mu fi mel nii dëgg dëgg dëgg juróomi at yi ñu génn rek la fi mel mais Tivaouane Peulh mel woon ni ñun ñoo xamante woon daan nga dugg benn oto ñi nga si gis ñëpp da nga leen di xam mais actuellement léegi mën nga dugg oto ba wàcce doo si gis koo xam waaw dafa màgg dafa màgg wax dëgg yàlla Tivaouane bal moom dafa màgg mais en tant que góor ñu agressé la defanteeg yow lu metti ñu gis ni ay photo yoo xam ne yaa ngi tëdd si lalu hôpital bi après nan nga ko dundee waaw métti na moom métti na waaye tamit boo amee famille boo xamante ni ak comité bi seetaanuñ ma ndax mën naa ni faju naa ba ni ma wéree nii maa ngi sant yàlla alhamdulilah boo gisee léegi nga xool bii léegi daanaka wér na fi ñu ñawoon nii rek moo xaw a des tuuti. non lii butéel lañ ma jam butéel si lañ ma daggee fii nii mu wàcc ba daggaale fii nii mooy gaañu gaañ yi nga gis noonu si photo bi mais daanaka defuma si sama benn dërëm. waa yóbbu nañ ko si yoon waaw sant yàlla tey ji lañ demoon jëli verdict bi euh, mën nañu satisfaire nañ mën nañu satisfaire wuñu parce que doon nañ xaar lu gën a diis loolu ñu teg leen ko mais nag sant yàlla parce que am na ku ñu si tëj koo xamante ni ñu ngi ko tëj 6 mois ferm yeneen ñaar yi ñu ngi leen tëj ku nekk 3 mois ferme ba pare ñu amaan leen 5 million yoo xamante ni dommage d'intérêt lay doon bu ñu ma war a fay parce que dañoo jël si man 2 millions 400 ak suma blessure yi mais nag doon nañ xaar ëpp loolu. mais comme loolu la yoon dogal sant yàlla. kon yow identifié nga ñi la agressé ba ñu jàpp leen ba yóbbu leen si yoon. si parce que xaw ma woon ñëpp mais am na ñu ma si xam seen tur léegi ñu ma si xam seen tur ñoom laa dugal si plainte bi. am na ñu fi dëkk ba daanaka ñu jàpp leen ba jébbal leen si loxo yoon. léegi lan ngay xaar. waa ñun lu ñuy xaar mooy ñun dañoo bëgg nekk si jàmm ak salaam liñ bëgg ñun mënaluñ ko suñu bopp état rek moo ko mënal suñu bopp. muy ministre de l'intérieur parce que moom moo war a dimbali suñu président bi fi nekk muy Macky Sall Macky lu ko waaye mënta waxal jàmbaar la nga ànd ak moom nga ñàkk ànd ak moom jàmbaar la mais dafa amul sens ñu ko jàppale amul ñu ko jàppale wax dëgg yàlla amul ñu ko jàppale ndax mënul nekk fépp mënul yëg lépp mais ñi mu boo xoolee suñu maire bi nga xam ne APR 100 pour cent la di gis Tivaouane Peulh li muy dund yow sama kër gi nga nekk tey si ndoxu teen la ñuy naan même pas 40 kilomètres ak palais de la république bu ñu la ko waxee da nga naan loolu dëgg nga dem si àll bi fu àll gën a sori fi nga xamante ni si àll bi fu mu fu mu gën a sori boo fa demee da ngay fekk ñu bi seen robinet di xelli ñu fii suñu soxna yeeg suñu yaay yeeg suñu tante yi dañoo roota roota root bay bëgg a dee nit day jógee si àll bi sax ñëw fi ne ah kon yéen si ay ndoxu teen ngeen di naan doo am loo koy wax parce que moom nga fi am branchement sociaux état moo ko mën ñun mënuñu ko lumière yu doy état moo ko mën ñun mënuñu ko sécurité bi dooy état moo ko mën ñun mënuñu ko ñun lu ñu mën nag mooy aar suñu gox aar suñu gox rek lañu mën mais nag lii aar askan bi yëpp si loxo état la ne nañu dimbali indil ñu post police fii Tivaouane Peulh soxla nañ ko loolu la ñuy demandé ministre de l'intérieur loolu lañ koy demande mu defal ñu ko fii Tivaouane Peulh jërëjëf Babacar moom mooy victime bi nga xam ne moom moo waral tey émission xew-xew ñëw fii si nga xamante mooy Tivaouane Peulh quartier Daaru Salaam gannaaw bi mu expliqué li nga xam moom la dund si agression bi dañuy wéyale suñu émission rek ndax bàjjenu gox dañ koy fas yéene waxtaan ak moom waaye imam bi kii bi aussi chef ne moom moo ëmb quartier bi yëpp ak yeneen jeunes yoo xam ne ñoom itam ñu ngi fi bu ko defee ñu expliqué ñu nan la dundee insécurité bi nga xam ne am na fii si gox bi ñu nekk muy Daaru Salaam Tivaouane Peulh Cheikh lan mooy faral di xew si seen gox bi ñu nekk muy Tivaouane Peulh Daaru Salaam bi moom li fii xew bari na gox bi li fii xew bari na insécurité bi la baabakar wax lu ko ëpp a ngi fi xëy na ñoom dañ ciy doog a jot mais ñun bañ ci jotee du tey ndax presque ma yeboo ma ne trois ans mu ngi nii ñaari fan ak ñett ñu agressé nit te man mii di wax ak yéen wóor nañu toog ci saal bi weyu tabaski daaw CTO lañ ko defee ndax sama doom lañu ñu gor jaasi ci bopp mooy booyu tailleur bi ngeen daan dégg ñu di ko wax ci réseau sociaux yi sama doom la woon kon xam nga ne yàgg na lii nag da koy firndeel ne ba léegi jógagu fi jógagu fi te tey yàlla def na ne sunu doom yi nga xam ne ñoo nekk ci quartier Daaru Salaam ak jannatu di ñaari quartier yoo xam ne dañoo lëkkaloo sunu nijaay yilif ko muy ndaw mi toog ak euh, jarbaatam bu ñuy wax fàllu njaay ñun daal bëgg nañu daal ñu dimbali ñu ci lu baree bari ndax euh, agression Babacar bii buñ ko xoolee war nañoo xam ne lii metti na metti na te ñu ngi koy dund te wax dëgg yàllaam bu ñu mënoon a am kuñ ci dimbali moom danañu gën a santaat lii metti na torop te fi mu toll nii fu ne jooytu nañ ko waaw ñun ñi nga xam ne ñun ñooy bàjjanu gox yi sama relais communautaire mu ngi nii toog sama wet fu ne waxtaane nañu ko fa mu ngi nii di ma dégg kon ñun fi mu toll nii daal yaakaar gi ñu am ba tax yéen ngeen ñëw ñu ngi ñaan daal nu ngeen ko mën a siiwale daal ba mu gën a siiw ba président jot ci ay ministre am jot ci ñëpp jot ci daal moom ndax lii mën a saafara wu ci Tivaouane Peulh metti na lool macha allah metti mu mel damay dégg ñu ne des fois jigéen ñi dañuy xëy di dem marché ñu dogaale leen wala ñuy xëy di jaay jeeg yooyu ñu ne dogaale loolu yëpp nan la ko meri di dundee surtout ñoom ñi xëy fajar. moom kay dund gu metti man moo ma tax a bàyyi jaay jën man dama doon jaay jën waaye yeewu gi ñuy yeew fajar di dem am na ci ñoo xam ne dem nañu ba fekk leen ci super bi ñu dugg ci la leen borom jaas yi wàccee. jël seeni pochette seeni caméra yëpp wàcc dem seen yoon te ñemewu ñoo wax te pourtant jigéen ñi ak góor ñi ñëpp a ngi ci tali bi di ko xool kon loolu mooy wane ne dëkk bi xam nga ne amuñu fit boobu wax dëgg yàlla góor gu taxaw yore jaaseem ñëw dugg ci biir super ne jigéen ñi indi leen ku nekk yëkkati portable am kii yëkkati pochette kii tekki caméra joxe ko gënalu la gënalu la nga far ah dinaa ko bàyyi bala ñu maa rey kay man itam ma bàyyi te xam nga ne toog liggéeyuloo tam amul njariñ lii ñu nekk nii du liggéey liggéey bala muy neex ngay xëy di dem di ñafe di wàcc ngoon di ñëw fekk sa njaboot sa biir kër te boo ñëwee fekkaat leen ci jàmm mais yow boo xëyee dem sax booy ñibbi si doo xalaat ne jàmm am na sama kër te loolu metti na waaw. en bàjjanu gox ban taxawaay ngeen ngeen siy def. waaw ñun ñi nga xam ne ñooy bàjjanu gox. Uhuh. wax dëgg yàlla ñu ngi ciy def ay formation ñu ngi ciy taxaw. mais nag fi mu toll nii il faut ñu am ku ñu dimbali ñu bëgg mu yéeg ba ci kaw ministre yi nañ ñu geestu ñun bàjjenu gox ñu ngi liggéey amuñu salaire délégué ngi di ma dégg amuñu salaire ay weccet dong la ñuy koppartu ci biir dëkk bi fi mu nekk nii dañu waroon a dem tey jii dafi VAD mënuñoo dem ndax mënuñoo agressé sunuy doom ñu waccaat fi lii ay gan di ñëw ñu bàyyi leen fi di dem VAD dalul sunu xel kon nag wax dëgg yàlla war nañoo mën a dimbali bu baax a baax a baax ñun daal ñu ngi koy jooytu ku ko mënti dégg ci état bi muy ministre bi di président de la république ba ci maire bi nga xam ne moom moo yore Tiwaawoon Pël ñu ngi leen di ñaan nañu jógaat taxaw ci Tiwaawoon Pël ndax xam nga ne maire mënul nekk fii tout pare xamul euh, quartier yi nekk fii xamu ko luñ ko ci leeralalul xamu ko délégué mu ngi may dégg musula taxaw fii suñu ko woo mu ñëw teew wala bu ñëwee la nga xam ne amal na ko solo moom lay wax lu ko nit ñi wax mu teggee ko teg fële moom doxal fi boppam te loolu taxutoon ñu fal ko na xam ne population bi ñoo ko fal na taxaw ci seen sécurité mu jàppale leen ñun lii lañu bëgg suñu dëkk bi amul sécurité nekk ñu ci jàmm nekk ñu ci salaam ndaxte dëkk bi ko ni Tivaouane Peulh dëkk rek ñu ne ca wuyu ak bandi ya te pourtant suñu doom yi duñu ay bandi suñu doom yi liggéey la xam daan seen doole ñëw indi seen njaboot di xëy di liggéeyi bu guddee ñu nekk sécurité bi ñu yor nañ seen i jabar ñu yor nañ seen i famille xam nga loolu risque bu rëy la ah li ñuy def Babacar ñag nag ñëpp teg nañ seen bët te naqa dina ñëpp nag naqa dina ndax ku jóge fii di dem bëccëgu ndara kam ñu tooñ la agressé la yóbbu sa alal loolu jaay doole la ak maa tey te xam nga ne loolu jekkul jaaduwul te Babacar Niang mii père de famille liggéeyam la am ak biir njabootam gi tey jii bu ëppoon fii tamit maa day taali mais Babacar Niang mii yaayam daa liggéey muy xale bu baax nag xale bu set wecc macha allah taqul tilimul agression wul du bandi di woyu parce que këram bii la am yor njabootam yor yaayam ji toog kon lépp ñu ko def nii defuñu ko Babacar Niang mi ñun ak askan bi lañ ko def ñun waa kàcce bi lañ ko def ah waaye yoon tam dafa am parce que yoon bu amee yoon def liggéeyam loolu mënul lu sant yàlla rek te xam ne yoon na def liggéeyam parce que euh, ñun am na ñu ñu yilif ñunu yilif am na ñeneen ñu leen yilif parce que Tivaouane booy xool ba mu yàgg benn poste police bii gendarmerie bii doyul Tivaouane Peulh ndax Tivaouane dafa màgg dafa màgg macha allah parce que tey ñun bu doon suñu sogo wala tey ñu am dara wala tey ñu Macky Sall dégg ñu lu ñu wax suñu jooy suñu naqar lépp mooy post police si dëkk bi parce que brigade euh, Sokoya beeg bee doyul Tivaouane Peulh ndaxte tey yàlla na fi yàlla xaaj ji tey yu fi jiyee amoon ñoom bala ñoo ñëw musiba am kon ñoom doyul Tivaouane Peulh kon ñuy euh, di di di ñaan Macky Sall di ñaan ministre Antoine Diome mu ñu mayee may poste police wax nañ ko ko keroog bu presse bi ñëwee waxaat nañ ko tey nañu may poste police parce que dëkk bi màgg na te amul sécurité te sécurité bu ñu xaw a am fan yi kës néew sax ñu xaw a noy waat fas néew mooy yàlla ak ñii jeunes yi sunu jeunes ndax ñoom ñooy xëy monté liggéeyi guddi ñu monté ci sécurité bi ñu ñu tëdd di nelaw dañ daan sàcc suñuy xar di sàcc suñuy bëy di sàcc suñuy ginaar di dugg si biir néegi di sàcc suñuy portable mais loolu fan yooyu yëpp daanaka weer yëpp jeex na fi ñoom ñii ñoo ñu tëdd di nelaw ak cause de ñoom ginaaw yàlla kon ñooñu bu ñu amuñu ñu leen jàppale ñoom sécurité bi ñoom may leen seen sécurité ñun askan bi dinañ ko bëgg dinañu neex loolu mooy suñu naqar tey mooy suñu ëllëg nan nanu jàppale si sécurité dëkk bi te sécurité suñu doom yii nga xam ne ay jàmbaar lañu ay jàmbaar fàq tëdd lañu loolu rek mooy suñu mébét Adja Ndeye mooy suñu naqar. wéy la rek ñu ngi toog ak ki nga xam ne mooy chef de quartier euh, gox bi euh, tonton ñu ngi lay nuyu. bisimilahi rahmaani rahim maa ngi leen di fay maa ngi tudd El Hadj Ndaw nekk chef de quartier Darou Salaam 1 fii si Tivaouane Peulh leen fay baax a baax a baax di nuyu seen directrice bi. maa ngi koy gërëm di ko sant. si déplacement mu leen déplacé si naaj wu tàng bi indi leen fii yéen xale yu baax la ñu ngi leen di sant ñu ngi leen sant leen gërëm. jërëjëf Ndaw man sant bi rek moo ma xaw a jaaxal boo ma doon wax euh, ñaata at yow yaa ngi dëkk fii Tivaouane Peulh. man depuis 97 laa fi ñëw 97 ak léegi defe naa boo ko calculé def na vingt 26 ans ren 26 an boobu ba tey maa ngi fi Tivaouane Peulh. Hmm. bi nga fiy dëkk est-ce que insécurité bi nga xam ne moo fi am actuellement nii nii moom moo fi amoon wala. déedéet boobu léegi amu fi boobu Tivaouane Peulh balaa nga fi ñëw sax ay sareet nga doon jël bu bu amul oto amu doon oto boobu amu doon dara fi oto sax amu du fi woon boobu da ngay wàcc fële si croisement ab Ablaye Wade nga jël sareet 75 heure bii bu jotee dootoo am sareet dangay dox ba ñëw fii boobu oto sax amu doon fii boobu dara amu doon fii. Hmm. léegi nag ñu dem mu dem ba màgg ba léegi yéen mënatu leen nekk si jàmm ndax ni ko baabakat waxee fi ñu aw léegi bi ñu ñëw xale yu góor yi nga xam ne fa lañ doon def ñaawteef di jaay ay yàmbaak yooyu fa lañ koy lal di ko jaay nga nekk waajur nekk ba pare euh, chef de quartier koñ bi di gis loolu di ko dund nan nga ko doon dundee en tant que chef de quartier dund dund bu métti dund dund bu métti parce que fii dafa meloon ni fii marché boo xam ne marché ga jaaykati jaaykati gerte yi la gerte caaf noonu la meloon comme gerte caaf comme gerte caaf la doon mel fii boo fi dañ la doon agressé da defal lépp nag suñ xale yu baax yii sant yàlla bu baax eh, bàyyi day am day ñaan yàlla am doom ju ko relevé te sant nañ yàlla bi ñu suñ doom yi xam nañ ne quartier bi am na garanti fi mu ne nii parce que am nañ ay doom yoo xam ne mun nañ garantie nañu dañ ci bi ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant nit ki nag loolu nag maam nag premier nag foog mu am foog nga tudd fas woo gis foog mu am premier muy mbay mii muy mbay buso mii gërëm nañ ko sant ko ànd ak jarbaatam bi yëpp ak ak ci comité bi yëpp xale yëpp man maa ngi leen di gërëm di leen sant. d'accord ñu ngi lay delloo ngërëm li mais nga nekk fii cef de quartier gis ñu jël yàmbaa ji di ko lal ne comme ni nga ko waxee comme kuy jaay gerte caaf yow booba yéen jéego ngeen ci doon def ak nan ngeen ko doon. def nañ ci jéego ba tey mais nag jéego bi sa xale yi yëpp moo moo ëpp nag jéego yëpp suñ dafa suul suñ jéego yëpp suñ jéego yëpp jéego xale yi parce que man ba bañ ko engagé pour dindi ko ci laa ànd ak ñoom engagé ñu ngi nii taxaw ci tem ak ñoom ne leen fii moom bu soobee yàlla suma première bakkan mooy njëkk a rot seen bos njëkk rot ñu ngi nii duñ ma weddi ma ànd ak ñoom nag ñu jàpp si bu baax a baax a baax a baax a baax mais fii Tivaouane pël yëpp la nag sama doom Tivaouane pël yëpp moom mel ni insécurité bi am Tivaouane Peulh amatul benn dëkk amul si benn dëkk amul si benn dëkk laa la wax loolu moo tax comme ni xale yi wax ni dañuy ñaan le ministre de l'intérieur Antoine Antoine Félix Diome nañu may ngir yàlla poste de police c'est une demande sociale dañ ko ko ñaan mu may ñu ko léegi li ñu siy wax mooy xale yi def nañ jàmbante ba léegi fi mu ne nii amatu fi léegi nag ay benn boo gisee xale bi nga ne ko lu ngeen jote li leen jotale li leen jotale rek lu lii amu fi bugguñ lii léegi bu xale yi dem ñu leen ñu leen kii di leen di leen di leen kar pour li tax dootu fi am rek loolu la loolu rek kese la dootu fi añ biñ bañ rek di ñu di een leen si loolu rek loolu rek moo tax ku taseeg ñoom fi mu ne nii ñu ñu ñu la loolu nag na si sécurité bi état moo ko yor surtout ministre de moo yor sécurité ñun mënuñu kii suñu bopp na def ne na fexe sécurité ñu indi fi police sécurité dëkk bi dëkk bi yëpp la ñuy waxal nag duñu waxal benn quartier dëkk bi yëpp la waxal dëkk bi yëpp amul benn sécurité amul benn sécurité benn sécurité amul si dëkk bi c'est la pagaille partout fu nekk amul benn sécurité si dëkk bi koñ bi koñ bi koñ yeeg yëpp amul si benn sécurité nañu dimbale may ay sécu indil ñu ay police comme li ñu wax ni gendarmerie bi dañ si def li ñu mun mais dañ dañ dañ war ñu renforcer mu sa mu euh, kii commandant bi nekk fii Kayre dañ koy ñaan mu waxal ñu Moustapha Fall général mu renforcer ñu seen gendarmerie bi loolu lañ koy ñaan nañ si defal loolu. voilà papa lan ngay tàggatoo. li may tàggatoo mooy Moustapha mu kii Moussa Fall général Moussa Fall Antoine Diome ak le le le directeur de la police nationale monsieur yàgg nañu indi fi poste de police loolu rek lañ di ñaan di leen sant yéen di leen gërëm wasalaam. jërëjëf mu ngi noonu dégg ngeen ko ki nga xam mooy suñu papa ji nekk chef de quartier fii si Daaru Salaam ñu fas yéene nag ànd dem wéyal euh, émission xew-xew ak xale yu góor yi nga xam ne ñoom nag fi ne nii ñoom ñoo jug taxaw temb ne non. sécurité totale la ñuy wax fii si biir Tivaouane Peulh jóg na jeex ñuy agressé jigéen wala di agressé góor wala di agressé ku mu mënti doon wala sàcc seen alal loolu la ñuy kaas ñoom itam nañ dem ànd ak ñoom si waxtaan bi. ñu ngi nii nag si mbedd bi génn nañu fekk euh, euh, ndaw yu toog comme ni ñu koy faral di defee grand place yeeg yooyu ñu fas yéene ànd ak koo xamante ne ni moom mooy président communauté bi muy Mbaye Bousso mbay ñu ngi leen nuyu. waaw maa ngi leen di fay di leen nuyu waa 7TV di rafetlu ñëw bi ngeen fi ñëw seet si fii si biir quartier Darou Salam jamono ji nag mu nekk quartier boo xamante ne ni mën nañu dafa bokk ci actualité yi ndax li ñuy faral di wax ne insécurité bi nga xam ne am na fi fii ci Tivaouane Peulh mais quartier ñu fi indi muy agression Babacar yi mu nekk agression bu métti boo xamante ne ni am na loo xamante ne sëpp li ko bënn mu ngi si biir yow tey yaay président communauté bi nan ngeen di dundee insécurité bi am seen gox bi waaw loolu boo ma ko laajee dinaa ci sawar ndax xam naa damay dellu si waat ci tuuti rek ci ginnaaw affaire yi ni mu déparé fii ci biir quartier bi ndax euh, boo gisee biir quartier bi affaire yi ni mu fi meloon yow sa wàllu bopp da ngay yéemu ci yàlla ndax da nga daan romb nga gis saaku saaku comme saaku ceeb ñu sotti wut beneen saaku lal ko si tàllal ko si digg mbedd mi kenn du wax samp paaka samp jaasi teg xóotu butéel teg seen sàngara di naan ku wax ñu dagal la saaga soo naree kii ñu attaque la histoire ak yow da ngay obligé da ngay noppi mu nekkoon lu metti ci biir quartier bi mu naqare ñu trop trop trop trop gendarmerie dafiy ñëw su ñu ñëwee ñu daw même pas cinq minutes gars yi dem ñoom ñu ñëwaat taxawaat ndax ragaluñu leen woon am na si yenn yoo xamante ne sax dañuy ñëw ñu affronter ak ñoom gars yi ñooy obligé retourner waat du benn du ñaar bàyyi nañ fi sax seen oto ñoom am na jour boo xam ne seen oto sax bàyyi nañ ko fi ndax dañu ñëw gars yi attaqué leen ñu bàyyi fi seen oto suñu beneen morom bu bokk si ñuñ am na oto boo xamante ne moom moo leen ko yóbbul loolu mu nekk lu doy waar nekk lu doy waar insécurité bi am fii ci biir quartier Darou Salam kenn xamul noo ko mën a tuddee dafa doy waar te ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk comme autorité ñoom dafa mel ne ñoom li xew yëguñu ko te yëg nañ ko li xew yëg nañ ko bu baax a baax a baax ndax am na si ñoom benn adjoint woote na adjoint maire xam na li xew ndax affaire bi dafa yaakaaroon ne moom dañ ko ci laaxaale muy woo di leerlu naan man bokkuma ci affaire bi te daf ci te te ñoom dañ xam li xew man loolu ma gën a metti dañu xam li xew ba pare te jéemuñu si dox benn jéego jéemuñu si dox benn benn benn jéego ndax Tivaouane ni mu mel dafa jéggi doyo ay xale yu ndaw moyenne de vingt ans ñi fi bandi bandi lu ñëpp moyenne de vingt ans la ñiy jaay yàmba ñëpp ñëpp ñëpp moyen de vingt ans la ñëpp amul ku si ëppal vingt ans ñëpp moyenne de vingt ans lañ loolu nag ñoom ñoo si war a jóg ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo yor sécurité nit ñi ñoom ñoo si war a jóg ndax ñun ñi dëkk si biir quartier Daaru Salaam daal ak quartier Jannatu ñu ñaari quartier yi nga xam ne dañ ko boole def ko benn quartier ah en tout cas ñun moom ñu ngi ciy bay suñu waar ndax lépp loo xamante ne moom ñaawteef la ñun dinañ xar suñu tànk tubéy ba du am si diggante ñaari quartier yi mais nag ku ñu si dooleel ñu jël ndax loolu la ñuy xaar si ñoom ndax ñun laajuñu leen dara ndax lépp loo xam ne ñun ñu ngi ko fiy def comme wàllu finance ñun ñu ngi koy defal suñu bopp ñu ngi cotiser am suñuy cotisation yi ñuy def ak bon volonté yi nekk suñu biir lépp lu ñu fi war a def ñoom ñu ngi koy ñu ngi koy def. d'accord nga ne dañuy jël saaku lal lal yàmbaa ji mel ni kuy jaay gerte wala kuy jaay ceeb eh, dëkk si dëkk bi la dëkk wala dañu doog nekk ay doole dëkk bi. non dafa am ñi nga xamante ne dañu dëkk fii ci biir koñ bi am ñoo xamante ne dëkkuñu si biir koñ bi ñi dëkk si biir koñ bi nag ñoom ñoo leen di dooleel ñoom ñoo fi nekk seen yaay ñoo leen di jox ay añak di leen jox ay ndékki te loolu moo fi war a jeex ndax ñun mënuñu dëkk si biir quartier bi di xeex lu bon ba pare ñoom ñuy fat ñuy def lu bon loolu moom lépp lu mu leen jaral ñoom pour ñuy fat ñooñu ñun dinañu ko jaral pour ñoom dootuñu leen fat loolu moom ñun xar nañ ci suñu tànk tubéy ne loolu dootu fi amati man daal li may ñaan mooy ñu dimbali ñu ñu wutal ñu poste de police ndax Tivaouane Peulh fi mu toll nii euh, poste de gendarmerie bi attanut ko ndax euh, ay six éléments sept éléments mënuñu yor sécurité Tivaouane Peulh ndax Tivaouane Peulh dafa yaatu dafa yaatu ba pare dafa bëri ay bandi agression bi comme tulleeg màlle comme tulleeg màlle man sama taatu parenteer bi souvent ma dégg ay yuuxu da ngay ubbi fekk daw nañ këf nañ posatu kuy xëy di jaayi jën loolu dafa doy waar génn fekk gars yi daw doo xam fu ñu jaar du benn yoon du ñaari yoon ñiñ fi agressé kenn xamul nu mu toll kii nii jour bi ñu koy agressé man ak moom man dama jóge si taliba di ñëw moom muy dem man damay egg si gàlle même pas dix minute ñu woo ma ne ma ñu ngi koy agressé bi ma demee fekk naa ñu gaañ ko ma jël yóbbu hôpital après si la am ñoom si xàmmee si guddi gi lañ def la tout ba kenn ki ñoo ko jàppal suñu bopp keneen ki ñu dem seen kër après papa moo ko jël yóbbu ko gendarmerie mais gendarmerie def benn jéego pour jàpp si kenn ñu ñoo def suñuy jéego ba jàpp leen moom jàpp si kenn gendarmerie mu xam leen bu baax a baax te li ma si gën a naqari mooy kii dañ ko agressé ah ay bandi agressé ko ñu jël ko ak man ak moom ñu dem gendarmerie ñu ne agresseur bi si boppam dafa wut plainte wut médical mu ñëw ñu téye ko moom téye ma man ñu def ñu garde à vue si samedi si guddi ba dimanche soir ñu doog ñu bàyyi. loolu man maa ngi koy soog a gis bi ma juddoo ba léegi en tant que agresseur am sañ-sañu dem di def plainte bay naan day wut médical si koo xamante ne yow xam nga ni kii du nit ku baax ñu jàpp nañ ko du benn du ñaar jébbal ko gendarmerie ñoom ñu xam loolu ba pare ñu ñëw ñu cee ñu màgg kii cee ñu garde à vue samedi si guddi ba euh, ba ba 15 heures si dimanche bi ñu ñuy soog a bàyyi loolu si lan la bokk. wala loolu xanaa dooleel la la laay laa jàpp man loolu day dooleel agresseurs yi wala moom daf leen di yokk fit pour ñoom ñu gën a ñu gën a kii si li ñuy def ñu bañ a bàyyi li ñuy def loolu dafa léegi ñoom defeere nañ leen ah. non non ki ki ki ki bindoon tamit ki defoon plainte tamit moom anam. waaw ki defoon plainte bi moom jàpp nañ ko léegi defeere nañ leen ba tëj nañ leen atte nañ leen tey woon jugement bi tëj nañ leen ñoom tëj nañ ko si mois ñeneen ñaari booy defe naa ku nekk trois mois lañ leen wax loolu lañ leen tëj mais ñu loolu dañ ko xeeb ndax ñii mënuñu nekk si koñ bi di di sàcc alalu nit ñi di rey nit ñi ndax kii yàllaa ko dimbali ndax dañ ko naroon rey ndax loxo bi ku gisoon ni mu meloon euh, non da tiit. ndax man bi ma ñëwee jàkkaarloog loxo bi mënu ma ko xool ndax xóot na façon xóot boo xamante ne loolu képp ku si tegul sa bët rek mënoo xam lii nu mu mel mu nekk lu doy waar moo tax nag ba pare ñoom ñu war a ñëw jël kii ne ko demal nga noppalu ji nga faju ji ñu jël ko cee ko garde à loxoom di metti mu ne leen bàyyi leen ma dem faju ji ñu ne ko noonoo xaaral xaaral noonu lañ ko fa xaarloowee di ko fa xaarloo ba 3 heures si bëccëg ñu koy bàyyi mu ñibbi. di wax moom fii moom Tivaouane maa ngi wax si kàddu jigéen ñi maa ngi wax si kàddu jigéen ñi pour te jigéen ñi fi Tivaouane Peulh dañoo sonn nu góor ñi sonnee nu ko raw la ñu sonnee amuñu robinet ku robinet courant. robinet ma gis sax muy xel robinet courant la si courant lay dox mooy robinet bi nga xam ne dañu koo branché boo ko ubbee léegi suñu amee courant am am ndox suñu pompe la bu ñu am. ah teen la la ñu teen bi la ñu def nii robinet ubbi ko muy daw ak courant. waaw waaw muy daw ak courant tey bu ñu amee courant am ndox suñu amulee courant duñu am ndox. chaque jour jigéen ñi dañoo rooto rooto rooto dañoo nga déedéet nekkul kër yëpp de nekkul kër yëpp li si lekk waaw dañ koy jënd pan juróom siwa bidon juróom moom la ñuy jënd daal kon quartier bi yëpp ni mu toll yëpp ñaata robinet moo fi am benn robinet moo am fii si koñ bi benn kon daaw salaam moo benn robinet la am te teen la ñu xëcc ko muy génn si robinet bi ngeen di pan juróom pour mën a am waaw waaw noonu la fa demee de noonu lañ fa demee dañuy wala buñ ko amulee bu fekkee courant coupé dañ si teen ba lañ dem dem jukkee poli bi dem jël poli bi nii di jukki di ko indi si. nekk fii diggu nekk si diggu Dakar ñun kay Tivaouane Peulh bokkuñu ko si boole boole wuñ ko si diggu Dakar parce que lu am fii Tivaouane insécurité bu fi am amul fenn jigéen ñi ku si amul tam benn activité benn activité la am muy jaay te ñëppay jaay. ku xëy boo génnee sa kër sa fit sax du daal. te bu ñu bu ngeen jaayee ñu agressé nangu leen. bu ñu jaayee ñu agressé nangu te kenn kenn ñamewul taxaw wax kenn ñamewul taxaw wax lu fi ne parce que yaa ngi sóoraale ne boo waxee tey xàmmee nañ la boo génnee ñu gaañ la waaye bu ñuy dund ñun tam dañuy dund si dëgg bu ñuy dee dañuy dee si dëgg looloo waral tey suñ tooywaay fii pour ñu wax insécurité bu fi am dafi war a jóge parce que deru daaru salaam daratu fi dara ñëpp boo waxee jigéen daaru salaam duñu lenn góoru daaru salaam te pourtant ñu baax ñoo fi ne ñu gëm seen bopp ay nit ñu baax liggéey jaamu yàlla rek lañ xam waaw daaru salaam daal bëgg nañ fi sécurité bu baax bu mat sëkk ni ñu ko yeneen gox yi amee ñu amee ko fii waaw commencé ko daal suñu maire bi suñu maire Papis Diop moom moom moom lii njàkk moom mooy njàkk. moom moo dañ koy lancer appel daal. dañ koy lancer appel pour mu ñëw mu recevoir ñu wax ko suñu métit kon yeneen gox yi ni mu leen di recevoir mu recevoir ñu ko ñun ay nit lañ kon ñoom mu xam ñu foofu mu toog ñoom ñu ñoo ko fi dij te ñoo ko fi war a génne tamit. voilà Cheikh dégg ngeen ko noonu nag mu nekk cri de boo xam ne ñoom ñi nga xam ne ñoo dëkk Daaru Salaam yëpp ñu ngi koy jooytu ñu ngi toog nag ak secrétaire général bi yow donc maa ngi nuyu ñëpp di nuyu auditeurs 7TV euh, man la secrétaire général comité ànd defar Daaru Salaam donc de un dañuy saluer seen passage bi ngeen ñëw def ndax mën naa ne à travers vous tey dinañ ñu dégg ndax euh, yàgg nañ fi recevoir média bi mooy mais booy seet site internet yi lay doon donc comme que yoon yoon ngeen signal boo xam ne fépp lay dem ci àdduna amaane suñu cri de cœur dina génn ba ñëpp dinañ ci jot ndax au niveau de Daaru Salaam li ñuy dund xaw na métti trop. ndax boo gisee lu mel nii am daa am lu jiitu mooy ci li nga xam ne tey suñu président moom la àddu muy li fi newoon duñ ne nag jóge na fi mais am na ci lu bari loo xam ne wàññeeku na mais dafa am lu des li des nag ñun loolu lañ bëgg mu jóge fi dañ carrément donc yemul Daaru Salaam kese mais c'est au niveau de Tivaouane Peulh donc man message bi ma ciy lancé mooy képp koo xam ne yaa ngi nekk jeune dëkk Tivaouane Peulh jéem a la organiser comme ni ko waa Daaru Salaam defee ngeen créer soit comité lay doon wala association yéen ña dëkk ngeen ànd doon benn te xeef lépp loo xam ne tey lu bon la lépp lu baax la ngeen war ko indi seen koñ ndax ñun ci loolu la ñuy def peut-être xeex bi la nit ñi yëg mais bëri na côté yoo xam ne tey dañ koy dox muy ci loo xam ne tey tey ñun ñooy demalante suñu biir di jàppalante suñu biir ndax comité lañ yor boo xam ne tey ñu ngi ci 128 membres yoo xam ne ñëpp ay père de famille lañ dëkk ci quartier jannatu daaru salaam te defe naa tey tey euh, borom kër du bokk ci caaxaan donc ñoom ñëpp ñoo ñëw bokk ci xam ne li ñuy defit lu baax la ndax dañ fiy xeex lu bon di fi dugal lu baax bëri na tey tey loo xam ne ba ci lampe bii nga tiim tey fii comité bi moo ko fi def du mairie bi comité bi moo ko fi def ak yeneen ak yeneen activités yoo xam ne def nañ ko fi donc daal euh, ñoo ngi def appel man damay jéggaani mairie Tivaouane ndax yàgg nañoo dégg xam na suñuy métit mais mën naa ne daf ne neem donc dañ koy jéggaani di woo ci kaw le président na xoolaat Tivaouane Peulh ndax booy set élection yi fi mujjee am yëpp APR moo fi gagné kon mën naa ne Tivaouane Peulh amoon nañ yaakaar ci moom yaakaar boobu nag comme que mandat mi ngi waaj a jeex ñun dañoo bëgg avant mandat di jeex mu indi ñu fi poste de police bu ko defee au moins tey tey ñaawteef bu amee ñun duñ xaw a tiit bu boobaa tey kenn koo xam ne tey appréhendé appréhendé nañ ko fa muy def ko te ñaawteef ñu yóbbu ko fa dinañ xam ne dinañ ko jaarale ci yoon ndax lii bu demee ba egsi fii mën naa ne li fi nekk la ndax tey bu fekk ne booy boo jàpp livré leen ko ñu corriger ko ba keneen koo xam ne day def lu mel noonu bu gisee niñ ko def dina ah lii duma ko def suba mais nag le contraire ngay gis donc domage donc dañuy gàttal wax ji rek comme que temps bi dafa xat jërëjëf. voilà muy noonu dégg ngeen ko li nga xamante moo am fii ci Tivaouane Peulh quartier bu ñuy wax Daaru ak Jannatu ñu boole ñaari quartier yi mu nekk quartier boo xamante xam ne moom ne moom moo fi am ndax dégg ngeen ni ko ñoom ñëpp waxee ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon di def ñaawteef di lal li nga xam ne moom la ñuy jaay di ko beñ ñu koy jaay ci ne agression Babacar bi nga xam ñoo fi dëkk mbokk yeeg xaytek am di jàmm yi ñu génne li nga xam moo nekk seen xol waaye jën massa bu baax a baax a baax itam lépp loo xam ne xew na si seen ay gox ngeen wooñu si numéro boobu si bas écran bi ndax émission xew-xew loolu moo ko tax a jóg lépp loo xam ne xew-xew la si gox rek dañu koy ànd ak yéen waaye ñii daal li si lu ñuy jooy muy affaire insécurité bi nga xam ne am na Tivaouane Peulh bu ñu amee sécurité rek am jàmm waaye bu ñu amee ndox tamit robinet dina baax parce que rootu moom di xëcc nii dafay metti wala ñu dem si pompe yi ubbi ko si robinet dafay a baax